kenn ki il a été forcé à à il a été limogé euh, muy maître Moussa euh, parce que wax na ci mbiru troisième candidature euh, mooy ci temps wu coup d'état bi en Guinée keneen mooy Arona Koumba Ndofène bon au niveau de la paire on dit qu'il est frustré que dafa bëgg a négocier ay strapontin Euh, mais moom wax na tamit son opposition à cette troisième candidature yow en tant que euh, responsable de Macky 2000 je présume que boo toogee ba tey c'est parce que da nga ciy ànd. waaw may mun a xam nga nag euh, may ma def benn rappel rek. Mhm. xam nga euh, ñun ñëpp ay acteur la ñu woon ci euh, mouvement du M23 juin. Mhm. donc yëg yëkkati fi woon troisième candidature Abdoulaye Wade bi ñu ko yëkkatee ñun ñëpp ñu àndandoo woon bañ waaye ñun suñu particularité mooy lan mooy ba nga xam ne le conseil constitutionnel. nga xam ne mooy le seul juge électoral légal et légitime joxe avis am concernant la troisième candidature du président Abdoulaye Wade le candidat Macky Sall je ne parle pas du président Macky Sall il n'était pas encore président voilà. le candidat Macky Sall nous a dit dans le cadre de Macky le droit vient d'être di par le Conseil constitutionnel ñun ñëpp dañu taxawoon bañ le juge électoral bi nga xam ne mooy le conseil constitutionnel mu légal légitime nee nañu Ablaye Wade am na droit troisième candidature xam nga lu ci des na leen wàcc sur le terrain liggéey parce que askan mooy fal. Mm-hmm. nous devons rester légalistes. mais balaa boobu à cause des manifestations dix sénégalais dee nañu. ils ont le prix du sang. à cause des manifestation yi nga xam ne yéen ñi bokkoon M23 bokkoon Benno Siggil Sénégal yéen a ko doon euh, jiite fukki xale doomu Sénégal gaañu nañu si dont un policier muy le policier Fodé Ndiaye. may mun a foo fàttali la foo fàttali mars 2021. non xam nga mars 2021. amatul troisième candidature mais waruñu négliger en vies humaines. mars 2021 amutoon troisième candidature y a eu 14 morts. c'est une affaire affaire privée. 14 morts ça aussi c'est très grave et ce n'est pas ce n'était même troisième candidature 14 morts am na. lu ko di 14 morts yi c'est l'appel à manifester. oui mais laissez ah, may ma terminer. kon y pas de bu bul jël bu cousa affaire bi lay bañ nga def. parce que mars 2021 il y avait pas de troisième troisième candidature. il eu 14 morts. plus que. li amoon waaw ma ce sont des hommes politiques qui ont invité les jeunes. à se dresser la troisième candidature mën a bàyyi ma yeggal sama raison ma man ñëpp wax nañu dëgg dëgg la ba ñu daaneel bàyyi ma daaneel faire des enquêtes dëgg léegi euh, ñëpp xam ne ne quatorze morts yi ah, appel à manifestation fu mu jógee woon c'était pour une affaire privée entre deux citoyens c'est aussi très grave du ma may ñu teg taxaw sama tànk teg sama tànk mooy le pré le candidat Macky Sall quand le quand le conseil constitutionnel bi mu joxe dafay waxee la droit comme quoi que le président Abdoulaye Wade à droit à une troisième candidature taxawul place de l'obélisque di xeex taxawul ŋàññi waxe conseil constitutionnel parce que légaliste la républicain la nit ñuy ànd ak moom daf nañu kaa leen dem liggéey parce que askan mooy fal. mais tontu woo sama question est-ce que jàpp nga ne de euh, yow euh, législateur nga est-ce que jàpp nga ne boo xoolee article 27. Euh, troisième candidature bi elle est valide elle est légitime. xam nga man nee naa li ma la wax kese je suis légaliste et je vais mhm. fii benn juge électoral la ñu am bu légal. muy la conseil mais yow en tant que député. leerul ci sa président Macky Sall bi mu buggee dindi mandat yam jëlee ko 7 ans yóbbu ko 5 ans le conseil constitutionnel dafa bañ mu nangu mu nangul ko loolu kon tey fi mu nekk nii kenn rek moo ñu mën a wax ndax président mën na nekk candidat ou non. mooy la conseil constitutionnel te jàpp nañu ne ñun mën na nekk candidat. parce nag Amadou rappelé na ko léegi yow laa wax. Amadou rappelé na ko léegi. yow yow loo jàpp yow. non man dama jàpp ne man dama jàpp ñun le président Macky Sall. yow laa wax Aji Mbergane man man dama jàpp ne ah. président Macky Sall. Mhm. moom dafa mën a nekk candidat. parce que nag conseil constitutionnel boo xoolee position bi amoon en 2016 wane na ne président Macky Sall mën a nekk candidat. ngeen wax nag mbirum parole kàddu Macky Sall kaddu président Macky Sall xam nga démb sama camarade de promotion en communication moom du Thiam toog na fi développé na éthique de conviction wax nga ko léegi éthique de responsabilité xam nga tey ki nga xam ne mooy la président euh, Macky Sall ñun dañu jàpp ne Amadou wax na ko constitution moo sut kaddu serment moo kut moo moo sut kaddu kon moom am na volonté li mu bëggoon mooy na mu ko def mooy ne kat am mën naa sax du ma def beneen mandat mais tey boo xoolee tey mu ñu nga sénégalais yi nga li nga xam ne dañu bëgg euh, sauver li nga xam ne mooy république sénégalais yi nga xam ne dañu bëgg restaurer li nga xam ne mooy valeur yi fi nekkoon suñu guide religieux jox ñu ko sénégale yi ànd ak président Macky Sall ak ñi nga xam ne tamit ñu ngi seen biir kër yi ñu si gën a bëri voté wuñ ñu ngi toog ñu on est les indécis ñoom ñëpp jàpp nañu ne. le président Macky Sall moo mën a nekk le choix de la continuité. merci beaucoup pourquoi mu mën koo nekk. xam nga tey koo xam ne tey euh, am na fu mu fekk Sénégal. Mhm. am fu mu ko yóbbu. Mhm. tey may mun a boo ñëwee Sénégal fekk fi de route yóbbu ko ci 189 kilomètres de route. may mun a nga ñëw fekk fekk onze pont autoroute non fi onze pont yóbbu ko ci 20 pont may mun a nga fekk fii. 84 villages la ñu électrifié par an ñu dem ba ci cent 440 ah. village électrifiés ah. par an. mais daanaka am 2202 villages électrifiés. Ah, daanaka ñu tey ñëw président indi TER indi BRT bi nga xam ne dina indi lu plus de 1000 emplois. trois cent mille passagers. xam nga tey non non je veux expliquer pourquoi pourquoi il y nekk jël na temps bu yàgg noonu question campagne xam nga nit tamit da koy seedal li mu liggéey xam nga tey le président Macky Sall dafi fekkoon de Sénégal mm. les en haut dans comme dirait Ari Lopez dans le pleurer rire mu ñëw indi fi Sénégal bu tolloo tey boo demee ci àll bi ñu dëkk ñun maa ngi ni Kaolack laa jógee fa laa jógee dama ndog rek si yegg si ñëw. Sénégalais yu tolloo wala territoire yu yu yu tolloo wutoon. Mhm. président ba mu nekkee di campagne dafa dugg ci àll bi gis nga mu dugg ci néegi ñax dugg na ci néeg yoo xam ne ñoo ko moo leen sut. Mhm. dégg na gis nga mu dem ci ci territoire national bi dëkk yoo xam ne benn président mosu fa teg tànk mu gis la ñuy dund. gis koo xam ne tey mu ngi bëgg enterrer nitam aji aji mënoo def bilan tamit. dañuy waaw non non non mais c'est c'est juste pour dire le pourquoi. Mm-hmm. il important ñu ñu tànn Macky Sall. tànn ko pour mu defaat nekkaat candidat. tànn ko pour liggéey bi nga xam ne moom la sumb. Mm-hmm. depuis 2012. ñu Sénégal lu nekk gis ci boppam président wax ko mën a yeggali. merci beaucoup loolu yaakaar naa ne Sénégal la ñuy seetaan. may mun a mu bëgg tamit. gis nga wàllum violence. ak ay xeex ak rey amul solo amul am solo. bu ñu jàppee na ñoom askan bi ñoom la ñu àndal nañu dem tranquillement dans la plus grande sérénité dem ci urne yi parce que xam nga kan kan mooy kan mooy élire. askanu Sénégal ñuy élire. gis nga violence ba la benn exemple. Mhm. dëkk yi nga xam ne amul stabilité la fay xew. Mhm. nee naa la yàlla dafa def damay dem ci dëkk yu bëri ndax position ma nekkee ci parlement mondial moo tax. Mhm. fi mu nekk nii la présidente des femmes de la Centrafrique des députés les femmes député de la Centrafrique. mu ngi dakaar loo ko fa indi nga foog toog ci biir këram ba deux h toog ci kuuram bal bal perdu mooy bal boo xam ne. bali fetal boo xam ne xam nga fu mu jógee. mu dugg si yaramam. ñu tiir rek sa bal bi ñëw fekk si biir këram ci kuuram muy féexlu mu ngi Dakar di faju est-ce que ñun Sénégal boobu lu ñu bëgg. merci beaucoup est-ce que bëgg nañu ñun. yeggu foofu. kon nag may mun a. askan bi ñuy seetaan yaakaar naa ne bu ñu dégloo ñi nga xam ne dinañ di oo ci violence. merci ci fitna élection ñu jëm. nañu bàyyi suñu candidat président Macky Sall la ñu dem élection askan bu dee bëgguñu Macky Sall bu ko voté bu ko bëggee nag daañu ko MFDC ah. may ma may mën a may MFDC dafa am lu mu wax non non ah, ah, non c'est très important dafa am may mën a loo wax yaa ngi rendre hommage suñu armée nationale xamoo sax li nga def may mën a j'ai été à Ziguinchor j'ai été à Mbissine Mbissine mooy les bases rebelles nga xam ne suñu àmb dañ ko nanguwaat foofu boo fa demoon y avait que les dama fa dem ànd ak l'honorable député Demba Keita bu Ziguinchor ak Moussa Sané gis nga foofu boo fa demee fi mu nekk les familles dañoo ñibbisi waat seen dëkkuwaay xale yi ñu ngi jàngi waat des familles sont retrouvées et tout cela c'est grâce à l'armée sénégalaise merci et beaucoup. tout cela liggéey président Macky Sall la ba nga xam ne tey famille yooyu tey dellusiwaat nañ seen base alors euh,